mooy bopp suuratul jaasiya benn saar la bu am ñaari tur danañ koy tuddee suuratu shariati ndax day jàngale mbiram sharia ci biir danañ koy tuddee suuratul jaafiya ndax li yàlla wax baatab jaasiya ci biir saar wi wa tara kulla ummatin jaasiya looloo tax kon ñu tuddee ko saar wi saar wi makka la wàcc mu fassiruna yëpp d'accord nañ ci am na benn aaya buñ ci wax ne moo wàcc Madina dañ ca yegg saar la wow boo jëlee aayaam yi fanweer la ak juróom-ñaar 37 la soo jëlee maanaam kalimaat yi 488 la lay jox soo jëlee maanaam xuruuf yi dana la jox ñaari junne xaraf ak juróom-ñaar fukk ak benn loolu la ëmb moom ci saar wi ci ay xaraf loolu la saar wi ëmb tamit ci ay aayaat loolu la saar wi ëmb tamit ci ay baat saar wi nag day jàngale rek li saari màkka yi baaxoo di jàngale muy mbiram pas-pas indi ay miracle yuy tegtale kartan ak yàlla gi ci bind ak asamaan ak suuf ak ci wàcce alquran yooyu yëpp ñu war cee mën a jàngee ne téere bii di alquran ci yàlla la bàyyeekoo lu mel noonu lay jàngale dana jàngale dekki dana jàngale mbiram dee dana jàngale tamit ñi nga xam ne ñoom gëmuñu dee gëmuñu dekki seeni jaar-jaar ak seeni histoire loolu lay jàngale waxoon naa la nag ñaareel foo fekk xuruful muqataa yi ci alquran rek al ah, maanaam téere yàlla ba moo cay tegu ba mu ne alif miim mu ne dalika kitaab alif laam raa maanaam ba tey alif miim saat ba tey boo jëlee tamit xaamiim ba tey xaamiim wal kitaab yu mel noona boo jëlee xaaf nga ne wal quraan nga ne nuun ne wal qalami moo tax kon xuruful muqataa yooyu foo leen fekk ñaareel bu ko alxuraan tuddee rekk da cay teg saa da cay teg alxuraan nag lottuloo gim lottuloo mbindeef yi ak bàyyeekoo gim bàyyeekoo ci yàlla ñi bañ cee am benn sikk moo tax mu ne bisimillahi sos na ma sama wax ci tudd buur bi arrahmaani buur bay xewalaakoon bépp mbindeef ci àdduna bi arrahimi buur bay xéewal ku ko soob ci àllaaxira xaamiim yàlla xam li mu namm ci xaamiim tanzilul kitaabi wàcceeg téere bii di alquran minallaahi aji tukkeekoo la ca yàlla al azizi yàlla may aji not ci nguuram alxakimi yàlla may aji xereñe ci njëfteefam xereñe googaa tax inna fi xalqi samawaati wala inna fi samawaati aji nekk la ci bind ak juróom-ñaari asamaan wal ardi ak bind ak juróom-ñaari suuf la aayaatun ay kaawteef yuy tegtale kartan yàlla ga la aayaatun ay kaawteef yuy tegtale wéetaay ak yàlla ga waaye lil mu'minina ñeel na way gëm ñoo ko mën a jariñoo wa fii xalqikum aji nekkale ci seen ak bind wa ah bind na tamit maa lépp loo xam ne yebbu su dana wisaaroo yebbu su dana teqalikoo min daabatin ci daaba ci kaw suuf mala yeeg yent yent yeeg njanaaw yeeg yi ci aju nekk na ca loola aayatun ay kaawteef yuy tegtala wiital ak yàlla ga li qawmin ñeel nit yooqi noonu yooyu danañu hóolu ñoo ko mën a jariñoo waxti laa fi layli nekk na ci huuteeg guddi yi wa nahaareeg bëccëg wa ma ansala allahu ak li nga xam ne wàcce na ko yàlla mi ne samaay ci niir yi min risqin ci taw ndax da koy sabab fa ahyaa mu dundal bihi ci taw boobu al arda suuf baax da mawtiha gannaaw dee xam waa wa tasrifi riyaahi ak soppandiku ngelaw yi bii ñëw tàng jir bii ñëw sedd bi bàyyeekoo di ngawal ngelaw chimal bii nekk janoob bi nekk ngelawu dëbbuur nekk na ci yooyu yëpp aayaatun ay kaawteef yuy tegtale kartan ak yàlla gi waaye loolu lépp li ko mën a jëriñoo li xaw ma ñeel na nit yaqiluuna yooyu danañu xelu tilka yooyu lay lay yii ma tudd laay mooy aaya yàlla yi nat lu danañu jàngat rek wax léegi ca yontu bil ci dëgg fa bi ay hadisin ana ci ban alquran baxdalaay gannaaw yàlla wa ayaat yi ak kawteef yoomi noonu la ñu gëm fa beyi xadiisin ana ci ban xibaar baxdalaahi gannaaw yàlla wa ayaatihi ak alquranam ci yoomi noonu la ñu gëm kon gis nga yàlla lim dëxëñ ci ayaat yooyu mooy tekki ay kartanam wane na ne wàcceeg téere bii di alquran manta bàyyeekoo ci kenn ku dul yàlla te yàlla tamit ci la bàyyeekoo wax gi ngeen di wax na ci yonantu bi la bàyyeekoo da ngeen a gàtt xel te wax jooju dafa leen yey yonantu bi arab la comme su indee woon alquran wax ko muy juróom benn fukki hisib kon yéen indil leen ma rek wax dëgg yàlla fu juróom benn fukki hisib téeméeri saar ak fukk ak ñeent indi leen ma fukki saar fatoo bi ashri suwarin mislihi muftarayaat mënuñu ko mu ne far leen sax bàyyi juróom-ñeent ya indil ma benn fatoo bi suratin mislihi mënuñu ko mu ne kon indil leen ma rek wax joo xam ne uslo bu mel ni alquran ci fasaa ci sololu faddu ci am balaaga lu mu tuuti tuuti baax na fal yatu bi hadisin mislihi mënuñu ko mu ne kon nag qul in ijtamaat al insu wal jinnu ala an yatu bi misli hadha al quran laa yatuuna bi mislihi walaw kaana baaduhum li baadin zahiran kon mu ne leen tamit bindak asamaan ak suuf kenn rek moo ko def koo jiin ña yaa bind asamaan ak suuf mu miim ko yàlla dong moo ko man waaye mu ne ñooña nag ñay jëriñoo ne yàllaa ko def mooy mu'minina yi mu ne waaye nag bind gi leen bind yéen ak bind gi bind mala yi ak lépp luy yukkat ci kaw suuf yàlla rek la waaye ñay ñay jëriñoo loola mooy ñi nga xam ne yuqinuuna li qawmin yuqinuuna fële tamit mu ne mu indi juróom bind gi bind guddi bind bëccëg bind maanaam ah, wàccee taw bi ci niir yi bind gim bind maanaam ngelaw yi tabaarakallaahu mu ne loola tamit ña koy jëriñoo li qawmin yaqiluuna def na ñetti façon yuminuuna maanaam muminiina yuqinuuna yaqiluuna ndax benn étape bu ne loolu la laaj ndax kat bind ak asamaan ak suuf boo amee imaan rek da ko askane yàlla moo tax sax ñi nga xam ne sax gëmuñ yàlla boo leen laajoon wala in saaltuhu man xalaqa samaawaati wal ard ñu ne la na laa kon loola imaan moo gën a jege mais nag bind gi leen yàlla bind ak bind gi mu bind yeneen mala yi ñu nekk ci kaw suuf bëri lool kooka moom ñi am yaqiin ci yàlla ñoo koy ñoo koy ñoo koy jox yàlla moo tax yaqiin moo gën a moo gën a kawe ci martaba ci iman man ngaa am iman te doo am yaqiin moo tax ñaari ñaari miracle la ndax yàlla ñaari kaawteef la ñu jox kaawteef bi nekk ci suñ biir ak bi ñu génn sa nurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim fil afaqi nag mooy lépp loo mën a teg sa bët fa fi anfusihim nag mooy li nekk ci sa biir te génnul la boo seet li nekk ci sa biir te génnul la moo gën a màgg moo gën a kawe li li nga xam ne moom nga mën a jàkkaarloog mën koo gis doomu aadama dafa foor fi ko yàlla jëlee ci toqantal ma niyu jaaree ko ci lumbu deret mu nekk suux mu wal ca roox muy dund ci biiru yaayam bala soob yàlla mu génn juróom-benn weer gën a néew juróom-ñeenti weer gën a not ñeenti at jëm juróom gën a bëri nga juddu nekk ndaw mënoo dara jooy ak yàq sa bopp ñu lay toppatoo ba nga mën a raam mën a taxaw mën a dem ba mën a dox mën a lekk nekk ponkal loola kenn rek ko man muy yàlla loola tamit nag boo amul iqaan ci yàlla am ak yaqin doo mën a settantal loola ba di ko mën a xam waaye tamit nag yi mu wax muy juróom yi mu boole yi wuuteeg guddi yi te xamoo fu mu denc bëccëg bëccëg ñëw xamoo fu mu denc guddi wàccee taw bi te xamoo fu mu ko defoon mu génn ci niir yi taw booba mu jël ca saxal ca gàncax goo xam ne xamoo fu mu nekkoon ak di soppandikoo ngelaw yee ngelaw lu ne la muy jëriñ ak moromam ma loolu day laaj xam-xam moo tax mu ne li qawmin soo amul xel loolu doo ko mën a doo ko mën a dégg kon xel moom la mujjee moo tax mu jox ko juróomi miracle Euh, ndax xel moo gën a foor ci li doomu aadama yi bi li yàlla jox doomu aadama matériel doomu aadama yëpp xel a ci gën a foor ndax mooy mënaatu taklif lu sa jëmm rëy rëy bu àndut ak xel yàlla toggu la dara lu sa jëmmu tuuti tuuti comme mësoor nga so su xel bu fa xel nekkee rek li war sa waajur yi war na la lu leen ñeexal tamit ñeexal na la kon xel dafa foor ba ko yàlla bindee da koo laaj na ko yow xel man maay kan ak yow yaay kan mu ne ko man maay jaam bu bu ñàkk solo bi yow yaay buur bu màgg bu tedd bi yàlla ne ko danaa matalee lu ma bëgg mu mat ci yow ku ma bëgg mu mat rek yow laa koy matalee moo tax jëmm bu manqué xel rek manqué dara neexatu fa xel lu ama am solo la euh, yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam nee na li gën a tedd ci lu yàlla di may doom aadama suñ la ko laajee nga ne mooy xel waaye xam nga léeg-léeg nit ñoo xam ne tabaarakallaa bu la yàlla xeñee xel nga dof xamoo nu ñuy waxee xamoo fu ñuy waxee xamoo nu ñuy toogee xamoo nu ñuy lekkee xamoo nu ñuy solo ko ànd ak yow mbaa mu bokk ak yow sax dana ruus li nga bokk ak nit muy mu yëkkati kàddu yoo xam ne soo mënoon rey sa bopp rey sa bopp dem ci jotaay wax wax joo xam ne waat naa ci yàlla soo mënoon a am eseel da ngay yëg dem ci asaman ne du ma ko fekkee te loolu lépp ñàkk xel rek moo koy waral ñàkk xel na mi nga commencé ci nga yaakaar ne yaa ëpp ñëpp xel yaakaar ne yaa gën ñëpp yaakaar ne yaa raw ñëpp yaakaar ne yaa gën a foor ñëpp loolu bu xasee am ci yow rek yàqule nga moo dal firawna maa urikum ila ma ara wa ma ahdikum ila sabila rashad ko boo ko nekkee rek dangay mujj yàqule kon xel lu foor a foor la yàlla na yàlla yokku ñu xel kon ñett yi yëpp benn bu ne tudd na ko ak moromam nga xam ne kon ak moromam nekkuñu benn waaye tamit aayaat yi déggee nañ ci ne tafakkur fii xalqilaa xelaat ci li yàlla bind ibadatun azimatun jaamu yàlla gu màgg a màgg la di xelaat ci li yàlla bind jaamu yàlla ko gën a màgg amut yonentu daana wax ne tafakkaru fi xalqillah wala tafakkaru fi lxaaliq am réew te da ngay da ngay xalaat ci li yàlla bind soo bañee yàqule yonentu mos naa toog ne xalaat ci lu yàlla bind lu tool ni benn waxtu moo ëpp doole jaamu yàlla ak juróom at mu waxaat tamit ne xalaat ci lu yàlla bind lu tolloog benn waxtu moo gën a màgg jaamu yàlla juróom-ñaar fukki at miqdaad ibnu aswad miqdaad ibnu aswad dem ci abi hurayra mu ne ko maa dégg yonantu tu ne xalaat ci lu yàlla bind daal lu toll ni saa tafakkaru saatin maanaam azamu min ibadati sab'i sinin ma dégg mu ne miqdaad mu ne maa dégg abi hurayra wax ko ma demaat ci aboubacar ma dégg mu ne yonantoo wax ne xalaat ci lu yàlla bind moo gën a màgg jaamu yàlla juróom-ñaar fukki ma demaat ci ibnu abbas ma dégg mu ne moo wax ne yonantoo wax ne maanaam xalaat ci lu yàlla bind moo ëpp doole jaamu yàlla juróom-ñaari at ñetti wax yi ñaari yaa ànd benn bi ànduñ jaaxal ma moom miqdaar sol daal lem dem ci yonantu bi kalaame leen ne ko dégg naa ci sa ñetti saaba yi ñi wax ñaar ña lañ wax ñoo ànd keneen ka lañ wax àndut ak ñoom mu ne ko xool ma leen ñëw aboubacar toog abi hurayrata toog ibnu abbas took mu ne ko wax waxal li nga wax ñoom ñaar ñëpp ñu jaar fa mu jaar mu ne ko wax nañ dëgg yow mu ne ko man damay xalaat yàlla mu màgg mi ni mu bindee juróom-ñaari asamaan yi ak juróom-ñaari suuf yi ak jaww ji ak ngelaw leeg li ci aju lool man moo may yéem moom lay xalaat ba yàlla rëy ci sama xol mu ne ko wax nga dëgg kon yow sa xalaat boobu moo ëpp doole jaamu yàlla juróom-ñaari at mu ne ko waa yow Ibnu Abbas ci looy xalaat mu ne ko man damay xalaat ci dee nit ki nekk fi ànd ak ay waajuram wala mu nekk ci ci ay doomam wala mu nekk ci biir ay soxnaam mbaa mu nekk ak ci ay mbokkam manoon lu ne gënoon a fonk boppam ci lu ne bu ko suuf taqee sax mu fexe ba faxas ko mbaa mu dem sangu ji tey mu dee mënta yëkkatee ci boppam mënta sol yére ñu yenu ko gas ba mu xóot sotti ko suuf si te mënu caa wax dara man loolu ci lay xelaat mu ne ko sa xelaat gi moo ëpp doole jaamu yàlla juróom-ñaari at Aboubacar na yow ci sooy looy xelaat mu ne ko sa xeet wi man daal damay xelaat sa xeet wi ak safara su ma yàlla mayoon li ma bëgg dëgg-dëgg yàlla dafa may bind ma nekk ponkalu jëmm ju ëpp lépp xam ne maay ëpp safara bu yowmal xiyaamee ma ñëw buuf ci kaw safara fees ko teg sa xeet wi kenn du dem safara ñëpp dem aljana mu ne ko yow sa xelaat bi moo ëpp doole jaamu yàlla ak juróom-ñaar fukki at kon li tax kon xelaat yi ni mu gën a kawee rek sa sa yool sa payoor gën a kawe ca yàlla li ngay xelaat tamit nu mu gën a màggee sa sa sa sa sa payoor ci yàlla gën a màgg kon doomu aadama xelaat dafa am solo yàlla dafa ñoo jox xelaat dafa ñoo jox xel pour muy xej pour ñuy xelaat xel boo ko amee te xelaatatoo rek jëriñu dara moo tax sa sa euh, xéeféer leen yóbbu safara yëpp mooy ñàkk xel nit bu dem boo xamul xel dem safara lu ñu wax law kunna nasma'u aw na'qilu maa kunna fi ashaabi sa'ir wallahi su fekkoon ne xam nañ kel duñ dugg safara moo tax yàlla mi ngi jox xel lu muy wax afala yatadabbaruun afala yatafakkaruun foo toll mi ngi wax loolu ci alquran waaye am kel te sa xel mi mënul laa xel lil dara su boobaa yow yàkki ñàkk xel yéen a kon xel xelaat rek lay jariñ xelaat nag li ci doole xelaatal ci sa bopp fi nga sosoo fi nga toll fi ngay mujj xelaatal ci li yàlla bind ci li nga mën a xam ak ci li nga mënta xam njëm njëlbeen ak yonantu yëpp kat xelaat rek moo doon seen jaamu yàlla gis nga yonantu bi sallallahu alayhi wa ba muy ñëw wàccee guñ ci moom charia da dem jabalu nuur di toog di xelaat ci mindee fi yàlla yi loolu moo doon jaamu yàllaam loolu rek la alifa nuska wal ibadata wal xalwata tiflan wa hakasa nujaba loolu booba moo daan jaamu yàllaam kon eh, julli am na doole xoor am na doole joxe asaka am na doole aj màkk am na doole mais li yàlla bind lu nekk nga xool loo cay xalaatee ak loo cay jàngee lépp nga delloo ko ci màgg ak yàlla gi moo ko ëpp doole waaye dara ñëw rek nga yéem rek bàyyi mu dem te yow moo cosaan la fa mu cosaanoo kooka baaxut léegi nag ñu xalaatul la yàlla wax ni lii kat li yàlla bind ko muy asamaan ak suuf ak wàccee alquran ak ngelaw leeg taw yi li muy màgg-màgg am na ñoo xam ne seen yoon nekku ci ñese seen yoon nekku la yàlla wax ak ne safara lañ jëm moo tax mu ne waylun xurwa ca safara waylun tatak mbugal li kulli affaakin ñeel na képp kuy duutaakoon asimin kay kay bàkkaaraakoon mooy ku bari bàkkaara siixatu mubaalaxa la koo xam ne yasmaxu dana dégg aayaati laay aaya yàlla yi tud laa di jàngeef ko àll yi ci moom su ma yusiru topp mu nuur mustakbiran di aji réylu ka an lam yasmaa ba mel ni déggut ko ba mel ni daal euh, ba mel ni déggut loola kooku de fa bashirhu na nga ko xamal tahakkum la xamal ko rek bi azabin ci mbugal alim na may bërëm ak métital koo xam ne wa ali alima su fekkee xam ne min ayat naa suñ kaawteef say an dara ittaxadaha mu jàppee ko husuwan muy luñ yëjji ulaayka yooye gaay lahum dal na seen kaw azabun mbugal muhinun muy borom ak doxa dal min waraayhim aji nekk la seen kanam ildaad la jahannamu safara walaa yux ni du jëriñ anu walis leen maa kasaboo la nga xam ne fàggu nañ ko say an dara wala mattaxasu caake loo xam ne jàpp nañ ko min duun laay lu dul yàlla awliya ay xarit wala hum dal na seen kaw azabun mbugal mun mu màgg a màgg yàlla na sama aayaat yi ni mu fooree ñiy jàng alquran wala ngay jàng alquran yëgoo dara li nga man buñ jàng alquran dafa mel ni dara xewut soo gisee miracle yàlla yu màgg yi nga jàppee ko muy ay yëjji mun a ñooña dee mbugalam yàlla ma nga seen kanam loolu nag mooy rek man lu ne ci fomi te ci ci alquraan yàlla ji toog ñi wane la laaw ci concert yi ngay baatere xaalis bu dul jeex te waat naa ne yaa nga romb ci sa koñ ba daaraay alquraan yoo xam ne ña ngay bëgg a daanu yaa ngi romb jàkka yoo xam ne parewuñ ka koy def ñaareel am na mbokk yoo xam ne ñu nga néew doole dimbaliwul leen muy jël alalam di ko saax-saaxee di ko tiitaroo ñu koy wane di ko caméra fekk na la muy def gëmu ca dara dafa bëgg ñu ne moo tabe rek kon ku man lu ne ci lëxuwul xadis te mënoo dara ci ahsanal xadis la yàlla di wax am na ñoo xam ne lëx wala xadis rek lépp lu jëm ci fo wala mu jëm ci fokat yi mën nañ caa def millions yi dul jeex waaye lépp lu jëm ci alquran mbaa mu jëm ci diine mënuñ ca dara moo tax toujours damay wax ne ñi man dara mënuñ dara ci diine ji ñi mënu dara dañoo ciy jëm dara ñi man dara euh, ñi ci gëpp lu ci ëpp mënuñ dara ci ci maanaam mënuñ dara ci daara yi waaye nag ña mënu dara rek ñoo cay jéem ñoo cay jéem a las-lasi su ko defee kon nag loola lu méttee métti la kon nag jël sa alal di ko def ci lëhwul xadis bàyyi fi ahsanal xadis yàlla nee na bu ëllëgee su ma la jéggalut mbugal ma lay xaar ca kanam mu ndax moo tax man wamin waraihim waraa baatu ildaat lay firi gannaaw di firi maanaam kanam léeg-léeg mu firi kanam léeg mu firi gannaaw wa kaana waraahum malikun yaxudu kulla safinatin xasban waraa u jooju kanam lay firi ñoom de départ nañ ci tefes gi mais nekk nañ ci seen kanam buur baa nga fa gaal gu ñëw te amul benn ayib rek mu ko kon fii tamit wa kaana waraahum ji muy wax tamit wa min waraihim ji jahannamu ca kanam lay firi waaye firiwut gannaaw yàlla ne haada alquran ji hudan jëmmi njub la alquran ji le moom jëmmi njub la walladina ña nga xam ne kafaroo weddi nañ bi ayaati rabbim ci kaawteefu seen borom lahum dal na seen kaw azabun azabun cër min rijisin ci mbugal alim ma may bërëm ak mettital allahu yàlla si mooy buur ba nga xam ne saxara tàggat na làkkum ñeel albahra géej gi li tajiriya ngir na daw alfulku gaar yi fii ca géej ga bi amri ci ndigalal yàlla wali tabu taqoo ngir ngeen sàkku min fadalihi ci wërsagu yàlla wi wala làkkum mbastale yéen na ngeen sant yàlla wa saxara tàggat na làkkum ñeel leen maa fi samaawaat nekk juróom-ñaari asamaan wa maa fil ak nekk juróom-ñaari suuf jamian mboole seen minhu mbir muy bàyyeekoo ci moom inna fi zalika naka nekk na ci loolu la ayatin ay kaawteef yu teg ci wét ak yàlla ga li qawmen ñeel nit yaqiloon ñoo danañu yatafakkaruuna danañu xelaat ñoo ko mën a jëriñoo ku xelaatu doo a def loolu kon alquran jëmi njub la alquran jëmi njub la mi ngi mel ni nga ne saydun adlun wax joo am balaaxa la ku ko bàyyi rek réer ñi nga xam ne nag dañoo weddi yàlla wan alquran gannaaw danañ xam cër ëllëg ci safara ca mbugal ma yàlla nag moo tàggat géej gi mu dal gaal ya man caa daw ak féeri yeeg bato yi waaye yàlla bu tàggatutoon gaal ni bu tàggatutoon géej gi ni ndox oyofee nga jël maanaam lu ëpp téeméeri ton di tëmb ci kawam ak nit ñaar seen bagage ya daw ca lu ëpp weer ba teere gi ki tefes wallahi yombu na ci gis-gis yow ma ca dugg waaye boo xamoon la la la composé loola ba mu am da nga xam ne lu ama am doole la waaye léeg-léeg dara yomb la ba doo ca xalaat léeg-léeg dara yomb la ba doo ca sant yàlla yàlla mu defal leen ko nag ngeen dugal ci seen i bagage dem di sàkku ji wërsëg yàlla lu ne tàggatal ñu ko ndax doomu adama yàlla da koo teral doomu aadama rek la yàlla terelee muy war leneen lu dul doomu aadama rek lu ñuy war lay doon bu la neexee nga nga imaginer nga xool doomu aadama rek la yàlla jagleel war nga ne ko damaa bëgg a war waaye ci jéeri ji laay am mu ne oto yaa ngi euh, maanaam métro yaa ngi euh, saxaar yaa ngi euh, ba tey maanaam jakarta yaa ngi sareet yaa ngi war leen nga ne ko dematuma ci jéeri ji damaa bëgg a dem ci géej gi mu ne kon nag gaal yaa ngoog bato yaa ngoog féeri yaa ngoog nga ne ko dematuma ci géej gi demuma ci jéeri ji ci jaww ji laa bëgg a dem mu ne la kon avion baa ngoog wa yaxluqu maa laa ta'lamuun waaye leneen lu dul doomu aadama moom lu ñuy war lay doon yaa ngi nii wax dëgg yàlla avion bi ëpp la fuuf yàlla tàggatal la ko waaje nañ ñoon ngi kos ca kawam bagage ya dugg ñu enregistré ko nit ña dugg waaje cuq rek mu tàkk naaw ak yéen ak bagage bu yow mi war avion bu la avion bëggoon a war nga nga xam ne yàlla borom kartan la sa oto bi noona xool ni mu toll nekk oto bi ponkal na mu toll xale bu ndaw fukki at ak juróom-ñett la yore ñëw dugal caabiam dugal cuq oto ba tàkk mu jël ay bagage sama mbokkam yëpp dugal ca départ xoolal gëléem ni mu toll nga nekk xale bu ndaw jàpp ko yàlla tàggatal la xel nga dem ba laab ko yeew ko ne ñoo ca kawam mu la yóbbu waaye kon yàlla moo tàggatal doomu aadama mu nekk ku war lu dul moom rek lu ñuy war la loo fi gis nag duwul doomu aadama ñi waral ko rek lam nga ci musiba la jëm foo mos a gis ay nag ñi teg leen ci camion fay fay camion bay mujj ak ñoom du jàkk gëléem yoo gis ñi teg leen ci camion mbaa ay xar wala ay ganaar wallahi waram googa bu bu yëgoon ne man bàyyi leen ma ma dox ndax loolu la ma yàlla bindee waaye nag doomu aadamaay war moom te dara du ko ca fekk kon yàlla teral nañu de tera teraanga ju rëy rëy rëy mu daanee nag wa saqara lakum ma fi samawati wa ma fi l ardi aaya ji sëñ daara Cheikh Modou yàlla na yàlla yokk leeram dafa daan wax ne dafa amoon ku ñu tuddee Rachid Rachid borom xam-xam bu mag la buur la woon mu amoon nag benn médecin boo xam ne nasaraan la moo ko daan faj bu feebaraan mu koy woo ne ko tuubal nga gëm ni nga gëmee yàlla nga gëmee ko Seydunaa Muhammad kooka ne ko du ma tuub mu nekk ca di wax ak moom du ma tuub tuubal du ma tuub benn bis nag mu ne ko lan moo teree yow nanguwoo tuub mu ne ko benn aaya ci alquran yéen a ko jàng moo ma tere tuub moo leerul sama bopp bi mu ne ko ban aaya la mu ne yéen a wax ne yàlla wax ne wa kalimatuhu alqaaha ila maryama wa ruuxun minhu yàlla kat baata maryama kat ci kàddug yàlla ci la yàlla xamalee ci moom sayduna isa muy rooxu gu baxee koo ci yàlla ñun ñi gëm ne isa doomi yàlla te yàlla ne wa ruuxun minhu minhu moo leerul ci man isa doomi yàlla la loolu mu ne loolu laa gëm te yàlla wax ne wa ruuxun minhu Rachid nag mënu koo tontu amul xam-xam bu ko mën a tontu waaye bu ñu la laajee loo mënta tontu tamit bu rëy demal seet ku la raw mu dagale borom xam-xam jamonoom ja ñu ñëw kenn mënu koo tontu ku ñëw mënta tontu wa ruuxun minhu ji ñu mujj nag ko benn ci borom xam-xam yi ne ko am na benn sëriñ bu nga tuddee Cheikhu Marosi yu borom xam-xam bu yàlla may la mu màkki ci tafsir xooxal mu ne ko xooxal leen ma ko mu ñëw mu ne ko waa ji lu mu wax nag wa kalimatuhu alqaaha ila maryama wa ruuxun minhu dafa ci déggee ci aaya ji ne Isa yàllaa ko jur ma lay laaj ndax ruuxu jooju foo ko mën a tattali min hu min hu ji mu ne ah kii de yàlla dogaloon na ne daal ab kàccoor la dana ñëw ci sa pale bi laaj la fi loo xam ne doo ca xam dara ñi la wër duñ ca xam dara man mii nga laaj ko simit xamu xawma ci dara fii ma teew waaye léegi-léegi may leen ma ma dugg xalwa dootuma lekk du ma naan feet yàlla joxul ma jawaab bu ma ko tontoo mu dugg xalwa nag tabaarakallaahu lekk naanu di commencé ci alif lam mim zalikal kitaab ba xegsi ci aaya ji am day tekki ne yàllaa jur asamaan ak suuf waaja yooxu ne ko déeréet wallaahi mu ne ko tamit Iisaa eh, bàyyi ko gim ko ci yàlla dangaa foo ne kon dafa tax yàlla jur ko wa ruuxun minhu ak wa kalimatuhu alqaa ilaa man wa ruuxun minhu ak saqara lakum maa fi samaat maa fi jamian minhu ñoo xem xatte waaja yooxu ne ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullahi kon baxee koo maanaam baxee koo fa yàlla ak baxee koo ca yàlla duñ benn asamaan ak li ci nekk yëpp ak maanaam Iisaa ak yonantu yëpp dañoo bàyyeekoo ca yàlla waaye dañoo bàyyeekoo fa yàlla waaye bàyyeekowuñ ca yàlla yow nag boo bàyyee boo xàmmeewut ca yàlla ak fa yàlla su boobaa da ngay foog lépp rek ca foofa la bàyyeekoo waa ji nag tontoo ko noona saanam moo tax kon liñ ciy déggee déggin yu bari la mooy buñ la laajee loo xamul bul rëy seetil ku la ëpp xam-xam mu tontu la ca Sayyiduna Omar li muy bari bari xam-xam laaj nañ ko faakihatan wa abban baatab abb mu ne xawma lu muy firi wa faakihatan wa abban ibnu abbas daana wax ne alquran de yàlla may na ma ci firi ko lool waaye xam na baat yu ma ci xamul wa raqiimu ja nekk ci suratul kahfi ak baatab tabaaraka bokku na ci yi ma xamul firim ma imaamu malik laaj nañ ko ñeen fukki masala ci benn jotaay ah, mu tontu fukk ak ñett ya ca des mu ne xaw ma ko imaamu saafiyu abu hanifa kenn ku ne laaj nañ ko mu ne xaw ma ko ba shaacir ba ne boo demee ca maraqi suud téere bu jàngale usul mu ne fal kullu min manahil arbaa yaqulu la adri fa kun muttaba mu ne mbooleem borom masaahibu arbaa yi laaj nañ leen kenn ku ne masala nga ne xaw ma ko su ko defee kon nag bul toog ñi léegi léegi ñi laaj la loo xam ne nga toog sa xel mi rek wala nga tontu ci sa xel mi rek eh, di léeb ak luppee nag jaxase rek waaye la nga wax dara jubu ca te loolu xam nga ne du jeex kon nit du rëy bu ñu la laajee loo xamul delloo ko ndax kat wa fawqa kulli di ilmin alimun alimta shay'an wa gaabat anka ashiyaa da ngaa xam dara am lu bari lu lu la lu la réer yonentu dafa ne xam-xam dafa mel ni gëléem la nga teg sa loxo rek moom nga xam la ca des ca gëléem nga yëpp tegoo ko sa loxo dafa laa riir moo tax nag kenn ku ne ak ni la yàlla xamalee nag lu kenn ku ne ak fi la yàlla xamalee rek euh, sa matière bi nga xam boo ko wàccee fekki waajee ca matière am ba rek da nga xam ne xamoo dara euh, kooku tamit bu bàyyee matière am ba fekk si la rek kooku dana xam ne xamul dara waaye xam-xam yi mënoo ko boole ndar képp ko yoor oto di ko dawal xam-xam la yor avion nekk nekk maanaam aviateur kooku tamit xam la mën a dawal saxaar ak yi xam la leneen ak leneen ak leneen leneen du mujj yore marchandise mi leen li nga mën a xam la muy jar kenn du la mën nax nga jaay ko ca prix ànd ak sa xel xam la waa am na koo xam ne boo ko dugg jotul ca loola xamu ca dara kon yàlla moo yore xam-xam kum ca xamal nga xam yàlla nañu yàlla xamalal boppam aaya ji tegu ci mi ngi wàcc qul illazina amanu yaxfiru sababu sool bi ñaari wax la ci mufassiruuna yi wax bu njëkk bi dañ na Omar ibnu Xataab ca Makka dafa am génn góor gu bokk ci banni xafaar ca la abi sarnil xafaar yi bokk saaga ko omar bëgg a jëflanteeg moom xeex ak moom yàlla wàccee aaya ji ne qul lillazina amanu yaxfiru lillazina laa yarjuna ayyaamallah buñ la tooñee ta nga mën a jéggale jéggaleel ñenn ña ne yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam xaswatu mustaliq moom la ñu tuddee xaswatu muraysi benn boo demee ci ulamaaw siira yëpp xare bi ñaari tur la am boo ko bëggee séparé da ngay wax ne mustaliq mooy famille ba mooy tu ba mu doon xeex ak place bañ doon xeexee moo tudd Muraysiya place boobu di Muraysiya nag amoon na ndox ba fa yoon bi demee nag ñu war a xeex ak euh, yéeféer yi yahóod ya fa nekkoon euh, ñu soxla ndox Omar ibnu Xataab yónni benn euh, benn jaamam bu ñu tuddee jëhjaaw ne nekkoo dem wutu li ma ndox ba mu demee di wuti ndox xale ndabi Aboubacar fees ndabi Omar ibnu Xataab fees bu paree nag kuy rot door a xaleem ba mu yónni woon moom raisu munaafiqiina yi di Abdullah ibn Ubay yéex a ñëw mu ne ko yow yéex ngaa ñëw di lu ko waral mu ne ko xale Omar ba de lañ fa fekk mu ne kenn du root lu dul ñetti ndab yi ñoo fees moo tax ma yéex a ñëw mu ne ah xanaa lii lay arab di wax ne yefalal sa xaj bi bu mag bu bu reggee rek song la sa min kalbaka yakulka yefalal sa xal bi sa xaj bi rek bu bu bu maanaam màggee bu bu amee doole rek song la waaye bàyyi ñii kat li ñuy regg ak place yi ñu dëkk ak alal ji ñu am tay ba ñuy jéem a aaye ñun ñoo leen ko jox ndax ñun ñoo dëkk madinatu munawara ñoom ay doxandiim lañ bàyyeekoo màkka la in rajaana ilal madinati la yuxrijana al a'zu minha al azalla mu wax loola wax ju bon nag waruñ koo gaaw a heggale ca kilifa nit ñi di ko waxee ba yonentu bi dégg ko yonentu bi sallallahu alayhi wasallam dégg ko Omar ibnu dégg ko ma rek jël jaasi ja bokk ko ne ko dama koy rey yonentu bi ne ko bu ko rey damay bañ yàq sama der ndax moom mi ngi nii dafa ñëw guerre pour ànd ak man ne gëm na bu ngeen ko rayee xeexoo am dañuy wax ne yonantu bi seetaan na saxaabaam ya ña ngay rayante léegi léeg ñu def ko ci ki nga jiite ab parti ñu taxaw jiiñ la ne la yaa yàq parti bi yow kat yaa sookale nit ñi yow man mi tamit jiite parti bi l'islam bi yéen ñii nitu l'islam bu ngeen xeexee dañuy wax ne maa yàq parti bi métti na waaye toog leen ngeen muñ rek doomam ja ñëw ku gëmoon yonontu bi la moo bàyyam ñoo bokk tur man du ma rey sama bopp yonantu bi ne ko déedéet bu ko rey bàyyi ko rek jéggal ko ñu dem ba ñibbi nag ba ñibbee nag comme dafay wax ne yonantooy ki gën a torox comme nam ko askane azu min hal azala doom ja bocc jaasi ja taxaw ca buntu kër ga ne ko papa doo fi dugg tay doo dugg ci kër gi booy dugg maray la doom jee ko ëpp doole fuuf mu toog fa yendu fa ba jant bi so yonantu bi door a yëgg nag histoire bi xoolu doom gi ne ko bàyyi ko mu dugg rek kooka nag moom ngay dégg mooy histoire u dee deexoon yonantu bi dem di ko jullee ji Amar ibn Xataab ko doo ko jullee yaay suñu kilifa waaye léeg-léeg njaboot xam ci biti loo xam ne kilifaam xamu ko ndax yaa ñu féetewoo ci biir ñu féetewoo la ci biti danañu dégg loo déggut danañu gis loo xamut danañu gis loo gisut doo ko fi jullee de mu ne ko su ma koy jullee bu naree dem safara mënu ca dara mu ne ko doo ko fi jullee kii naafeq la yonent bi bu ne defal leen sàppi rek Omar ñëw mel ni ku ko ba ma yonent bi nag mujj ne ko Omar man la yàlla la mu ne ko yow la yàlla yónni waaye doo ko fi doo ko fi jullee li ma xam ci kii yow xamoo ko ci waaye ba aaya ja wàccee dafa ànd ak Omar ne ko wala tusalli ala ahadin minhum maata abadan wala taqum ala qabrihi boo moo tax bari na aayaat yu wàcc tu wax Omar wax aaya yi ñëw ànd ak sayduna Omar loolu ci la bokk aaya yi na ci tamit maa kaana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yusxina fil ardi Omar wax na yonentu bi wax yàlla ñëw ànd ak sayduna Omar ci prisonnier yéen jàppoon ci xare Badar te bu gudd la léegi nag aaya ji ne bu ko jullee bul taxaw seen xabru lañ ca yonantu la ko jaarale waaye ñoo ko moom koo bokkul ak diine man ngeen a maslaa ci àdduna bu la ñaanee may ko booy dimbale dimbale ko comme yaa ko tene bu feebaree seeti ko yonantu bi seeti na ab yahud bokkuñu woon diine ba mu demee sax loola moo ko sedd xolam ba mu tug dugg ci lislaam waaye bu dee xasee am nag kenn ku ne nañ la bàyyee sa ñooñ diine ñu toppatoo la ñoo la war a sang ñoo la war a denc yow jullit bi amoo droit fekkee ko ndax bam ne wala tusalli ala ahadin minhum maata abadan rek mooy amoo droit fekkee jullee ga wala taqum ala qabrihi mooy amoo droit fekkee rob ga waaye nag bu dee amagul nag loo man defal wala tu sali la ahadin minhum maata abadan tamit dégg nga ci ne bu leen ñaanal koo la ak diine bu dee xasee am bu ko ñaanal bu bu bu bu fekkee dee amagul nag mën nga leen ñaanal yàlla jubal leen ak la ca aju Ibrahima daana ñaanal baayam waaye ba mu demee ba génn àdduna bàyyi na ñaan ga kon lii la lislaam wax lislaam nag kenn du ca maslaa ci xaritoo kenn du ca maslaa ci leneen xalali xalali yàlla la te yàlla wax yonent bi lii la yonent bi tamit tabaarakallaahu maanaam jàngale léegi nag munaafiq Euh, wax loolu yonent bi nag yàlla wàcce aay yi neel xomar waaye nañ jéggale buñ topp munaafiq bi yonent bi waxal sa gaay yi buñ ko rey buñ buñ leen buñ buñ buñ ko topp moom lay aaya ji wax nii ne waqul waxal li na ñeel ña nga xam ne amanoo gëm nañ gëm nañ lislaam mel ne Omar ibnu Xataab ne leen yaxfiroo nañ jéggale li na ñeel ña nga xam ne laa yarjuuna yaakaaruñ ayaama laay fan yàlla ya wa tilka ayaamu nu daawiluhaa xamuñ loolu léegi see ngir na fay xaw man nit bi maa kaanoo ci li nga xam nekk nañ yegg si bu na di ko faggu man la ku jëf saalihan jëf ju baax fa payooram nga li nafsi ñeel na boppam wa man asaa ku ñaawal fa lorug ñaawalam nga alayha dana ca bakkanam ba su ma tur joxoon a topp def na delloo leen yéen ñëpp ilaa rabbikum jëm seen borom bàyyi leen leen bu leen leen topp kon aaya ji aaya la joo xam ne dafay tere toppante ku la tooñ boo ko mënee jégal jégal ko te yàlla tax ku la xeeñ jox maanaam booy koy booy mën a jox jox ko ku dogg jox ko yonentu bi kat ci lii la gënee ñëpp ku la dagg nga jox ko ku la bañ maanaam nga bëgg ko ku la xeeñ nga jox ko waaye nag ñun suñ jamono ji tey mu xam maa ko gën a bon tey mu xam ne maa ko gën a soxor li muy jaay tey ma jënd lépp te la muy jaay dara baaxu ca loolu mooy tey suñ feebar euh, kon lool la yàlla bëgg aaya ji ci tegu nag mi ngi wax yàlla ni mu war a sëgalee banu israil ñoo ëpp ay yonantu ci ni mu def yi jox na leen nubuwatu jox leen risalatu jox na leen tawreet jox leen injil yonantu yàlla yëpp boo leen jëloon la ci ëpp banu israil lañ loolu nag xéewal gu yàlla defaleen xéewalu mannu ak salwa ak nimit soxor giñ soxor xam ne yonantu bee yonantu bi la Abdulaay ibnu Salaam wax ba ma ne ko jàkk laa xam ne moom laa gën a xam sama doom ji ndax sama doom ji xamul lu ma lu yaayam def sama gannaaw waaye nag bañ sang giñ am raw leen rek moo tax ñu weddi yonantu waaye xam nañu yonantu bi mooy yonantu bi sallallahu moo tax mu ne wala xadd tey naa wallaay sa dëgg-dëgg joxoon nañ bani israila waa banu israila alkitaaba téere ba di tawreet wal xukuma ak xatte ya ca nekk wa nubuwata joxoon lañ leen nubuwa ñoo ko xëppale ci ci giir yi warzaqnaahum wërsëgal lañ leen woon mina tayyibaat ci yu teey lu mel ni man noog salwa wa faddalnaahum gënaloon nañ leen alal aalamiina seen mbindee fi jamono ja wa aataynaahum joxoon nañ leen bayinaat la yu leer naññ minal amri ci mbiram diine fa maxtalafu wuuteewuñ ilaa min baadi maa jaahum lu dul ganaa boo xamee ne dikkal ne al ilmu xam-xam bu wér ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam baxyan ngir ak beew goo xam ne dafa leen a jural ak xañaan baynahum seen diggante inna rabbaka naka borom sa yaqdi dana xaqte baynahum seen digg yowmal qiyaamati fii maa kaanu ci leen xam ne nekk nañ yaxtalifoon di huutee fii ci moom summa jaxal naaka topp jox nañ la mooy defal nañ la ala sarat ci sariya minal amri ci mbiri diina ji fa tabiha toppal sariya ba rek wala tabix bul topp ahwa alladina bànneexu gaa yi nga xam ne laa yaxlamuuna xamuñ dara toppal sariya ta bàyyi leen wa innahum naka ñoom lan yuxnoo mënuñoo jañ an ka walis la mi ne laay ci mbugalam yàlla mi say an dara wa inna zalim ne naka tooñkat yi baxdum lenn ke ñoom awliyaawu baxdin xaritu leen lañ waaye wallaahu yàlla waliyu muttaqina mooy aji méngoo way ragal ña haada alquran ji basairu mandarga la yoo xam ne mën nañ caa settantalee ba xam xattee yàlla yi li naa si ñeel nit ñi wa hudan njub la wa rahmatan yërmande li xawmin ñeel nit yooqi noonu yooyu danañu hóolu ndax ñoo ko mën a jariñoo alquran a ngoog xéewal yu rëy yëpp jox banu israil boo ko doon lim fi ngay fanaan ànd ak loolu nag bi yàlla na yonantu bi mu hóor leen péng ne kii la seen càng googa gaa yi jiitalee leen ñu bañ mu rëcc leen rek moo tax maanaam ñu wan gannaaw yonantu bi yàlla ne bu la wanee ganaaw yow wanal kanam sharia rek nga topp ko te bu leen topp ci seen bànneex ya ndax ku topp sa bànneexu bakkan da nga torox euh, loolu sax dana ko ki teg ci ku topp sa bànneexu bakkan torox afarayta man ittaxasa ilaahahu hawaahu ndax waa min bàyyi ko ci yëx wii rek ndax yëx wii bi saahibihi eh, fi naar dafay këpp boromam ci safara kon ku topp sa bànneexu bakkan mu këpp la ci safara su boobaa kon moo tax mu ne ko bul topp seen bànneex bul topp seen bëgg-bëgg yow toppal rek li yàlla wax aaya ji nag bokk na ci aaya yi nga xam ne tamiimu daari yi daana fanaanoo di ko jullee ba bër set di jooy te nañ cee jàngee lu ne aaya la joo xam ne yàlla dafay wax ne ñay jëf lu baax ba dee ca bu yowmal xiyaamee du ma leen xemaleeg ñi doon jëf lu bon ba dee ca ñi doon jëf lu bon safara ñi doon jëf lu baax aljana kon ndeke ku bëgg a fayeeku payoor bu rafet ëllëg payoor bu duun ca yàlla saxal ci lu baax ci wax ci jëf ci pas-pas ku bëgg a fayeeku payoor bu bon ëllëg ci kanam yàlla saxal ci lu bon waaye càng gi ngeen nekk am daraja ami alal gaa yi dar leen ngeen foo bu yowmal xiyaamee nii lay demee yàlla ne déedéet wallahi ñooy jëf lu baax du ma leen xamale ñuy jëf lu bon duñ bokk fuñ jëm de ñii dama leen di terali ñii dama leen di toroxali ñii dama leen di terale aljana ñii ma toroxale leen safara te mii mu daar nag bu ma saan a jàngali rek jooy ngir ngir ngir aaya yi raglu gim raglu di ko naafila guddi di rukkoo di sujjóot di xalaat aaya ji di ko jànga ka jàngaat ba bër set lu ko commencé gannaaw bu mu julee gee rakkaa bu mu naafila aaya ji lay doon ba bër set fu mu koy jullee ma ngay jooy ngir xalaat wax jooju mën nañ see jàngee ne kon ku bëgg a fayeeku da ngay nangoo liggéey ñi ngi ci nawet nawet nag day laaj balaa ñëw nga mën koo fàggu wut yu baax u jiwu ut jiwu bu baax am surga di dem tool ànd ak ñoom soo lëggee bu ñu demee ba ci traite bu la yàlla dimbalee nawet ba baax rek nga sant yàlla waaye nawet bi jot ngay nelaw muy dënd ngay nelaw bay woo defoo dara ba gars yi ñu leen di peese la ñi am 4 millions ñi am 5 millions ñi am 30 millions nga nekk ne ay man de su ma yëgoon bay gerte de dégg naa ren ren moom gerte ren la gën a dox man su ma yëgoon li ma li ma doon bay ci dugub yëpp ma def ko gerte réccu nga su boobaa pertement la su ma yëgoon gerte gi gën a bëri mooy su ma yëgoon julli gën a bëri su ma yëgoon mboq mi ma gën koo bay am ut engrais bi mooy su ma yëgoon asaka ye gën a bëri kon lii lépp yàlla jox nañu bay bay mboq nawet boo xamee nangu na mboq nangu na dugub nangu na gerte nangu na xaal nangu na pataas loo ji mu sax su boobaa nag nañ ji lu bëri rek te nangu koo bay mbay mu rafet soo lëggee nag lañu la ñu am lañ la ñu récolté ca mbay ma rek danañu jëriñ te loolu àllaaxira lay doon moom lay wax si nii moo tax mu ne am xasiba ndax dafa njortu na ñi nga xam ne ijtarawu dañoo fàggu sa yaati jëf ju bon an yaj'alahum ba def leen que lazina ñi nga xam ne amanoo gëm nañ wax amilu ñu jëf saalihaat jëf ju baax sawa ñuy waxee moo mooy xabar ja man ta xam de loolu mënuñoo xem maxyaahum seen dund wa maatuhum seen ak dee saa a bon na maa yaxkumun la ñuy xàtte wa xalaqa bind na laahu yàlla waatu juróom-ñaari asamaan wala arda ak juróom-ñaari suuf bil xaq ci dëgg wali tujjisee ngir na fayeef kul seen bépp bakkan bi maa kasabat la mu fàggu wuhum ñoom laa yox la mun a deefut tooñeef leen ba leen ni yokkal jëf ju bon jun jëfut mbaa ñi leen ni tooñ ba leen ñu wàññil jëf ju baax jun jëfoon du am mukk kenn ku ne li nga jëf rek ngay fayeeku yàlla du tooñ kenn afarayta ma ni taxasa yàlla ngi ciy wax di wax ak xéeféer yi ne ñoom de jaamuwuñ yàlla seen bànneexu bakkan la ñuy jaamu xam nga gis bëri na ci ñoo xam ne samp nañ xërëm di ko jaamu nga taxaw naan seen xërëm la ñuy jaamu jaamuwuñ xërëm seen bakkan la ñuy jaamu ndax boo sampee xërëm def ko istati di ko jaamu soo demee ba ci kanam nga gis xërëm bu ko gën a rafet da ngay màbb booba nga demaat gisaat bu gën a rafet bàyyi booba kon sa bànneexu bakkan nga topp léegi-léegi jël aw xeer di ko jaamu demaat ba ci kanam gis xeer wu gën a rafet ñi bàyyi fa xeer woowu jëlaat beneen xeer loolu lépp kon seen bànneexu bakkan moo leen di wëndeel waaye boo xamoon ci yàlla rek nag loolu dootoo ca nekkati doo sensé doo fi nekk naan damay soppeek damay def na le waaye yàlla joo fi hut juddud yàlla boo demee bu la yàlla xeexee rek danga mujj xeweeku sensé ko dem huti keneen moo tax xeewu lu baax ci nit la nit dafa war a xeewu saa yoo xeewoo xeewu nga mën a laa may ci xeweeku nit ki nag boo ko bëggee xeew te du xeweeku da koy da koy da nga koy rek di ko réeral su boobaa ku dul ku ku ku ku xeewu du xewee ko ba yowmal xiyaam waaye ku xeewu xewee ko kon ku bëgg a xewee ko na nga lu ko moy rek ñi xeew la nga nekk ca loolu doo ci jógee ko ba yowmal xiyaam yonent bi nee na nag nekkul ci roon suuf lu gën a màgg lu ñuy jaamu lu gën a rëy bànneexu bakkan bànneexu bakkan dafa bokk su ñeenti noon yi moo tax ma wax ne ku fi nekk di bëgg a noonoo nit ñi da ngay ñeenti noon ku ko xam doyal noon ku xam noon bu day sa bakkan xam noon bu day saytaane xam noon bu day ni bànneexu bakkan xam noon bu day ni àdduna doyal nga noon ndax noon yi benn rek la ci aadama xamoon am problème inna haada aduwun laka wa li zawjika fala yuxrijannakuma min aljannati fa tashqa terewul topp na ca ba génnee ko ba génnee ko aljana ja te benn noon dongu la am xamul noonu àdduna xamul noonu bànneexu bakkan xamul noonu bakkan benn noon dongu la am muy saytaane yow yàlla nattu la nga am saytaane am bakkan am bànneexu bakkan am àdduna bëgg cee yokk sa jabar ji bëgg cee yokk sa mbokk mi bëgg cee yokk sa xarit bi bëgg cee yokk keneen ak keneen da ngay sonn ku xam ñeenti noonu doyal comme noonu moo la neex nga xamal ci ñeent ñi te ñeent ñi kenn ku ne dafa yor ngànnaay armé wu di la songu bakkan armeem mooy regg bakkan moom feeg rooful la regg mënulu la dara yow boo ko bëggee gañe xiifal rek seytaane mu armé wu ñëw song la armeem mooy nelaw bu la roofee nelaw gañe la soo ko bëggee gañee taqoxal foog néew looy nelaw borom xam-xam ne juróom-ñetti waxtu ku ko nelaw doy na ñii ne ñenn ngeen ne juróom-benni waxtu boo demee ci risalatu saafiya nee na juróom-benni waxtu ba juróom-ñetti waxtu waaw fukki waxtu yeeg ñeent ngeen yi nga liggéey ko yi nga jaamu ko yàlla am na ñoo xam ne sax loolu la ñuy wax ne loolu la médecin yi gëm tamit ne booy nelaw juróom waxtu dana baax ci sa santé dana baax ci yow bu ko manqué mën naa am lu mu def ci sa yaram waaye am na ñoo xam ne sax ñaari waxtu duñ ko nelaw ñii sax du nelaw maanaam waxtoo genn walla ndax noo gën a bëggee yàlla sa nelaw gën a néew noo gën a bëggee àdduna seytaane gën laa gañe sa nelaw gën a bari am na ñoo xam ne buy jant bi so seen bët ya sonañ te balaa balaa seen bët yaa fenk jant bee fenk biddanti rek mënoo ca dara su ko defee kon nag seytaane armé wu song la moom roof la nelaw soo ko bëggee gañe fokk bakka maanaam bànneexu bakkan ñëw roof la wax ju bari ju xamul njariñ àdduna ñëw roof la maanaam xew mbumbaay rek ak jaxasoo ku la gën a bëgg xew moo la gën a bëgg àdduna xew wu jeex mu ne bële du ca bàyyee ko lépp te lépp xew àdduna rek am na ñoo xam ne ñoo gën a ñemee xew kaw diir yi wala cin yi ah, fooy dem te doo fa fekk cin moom yombut am na ñoo xam ne ñoo leen gën a ñeme ñoo leen gën a ñemee xew waaw ñeenti noon yi ku ko xam moo amee ñeenti armée song la waaye wax dëgg yàlla war ngaa doyal nooy war ngaa doyal noon koo ca doolee ti teg sa boppu coono moo tax mu ne afarayta soloma man ka nga xam ne ittaxasa jàpp na ilaahoo yàllaam ja hawaahu muy bànneexam wa addalahoo sànk na ko laahu yàlla ala ilmin mbir mu muy nekk ci xam-xamab yàlla wa xatama kaste na ala sam'ihi ci déggam wa kaste na tamit xalbihi xolam ba wa jaala def na ala basiri ci gisam xisaawatan ak muuraay fa man képp koo xam ne yahdi maanaam dana ko gindi ndax koo xam ne dana gindi ko fa man yahdi ana kan moo koy gindi min ba'dillaahi gannaaw réeral ak yàlla afala tasakkultaa ngeen xalaat wa kaaloo ñoom ñu ne in maa hiya déet dund illaa xayaat naa lu dul muy suñ dundu gi addunyaa gu jege gi na namuutu ñu danañu dee wa nax yaa ñuy dund sababu suñ doom yi ñu fi bàyyi wa maa yuhliku naa déet di ñu xalak ila dëhru lu dul romb ak jamono mooy yàggaay ga wa maa lahum déet di ñeexa leen bi daalika ci loolu min ilmin ci benn xam-xam in hum déet ñoom illaa yaxunu lu dul ñuy njortu dafa am ci nit ñi nit ñoo xam ne dëhri yu lañ am ñoo xamee tabaaci yu lañ am ñoo xam ne ay falasafa lañ ñoom ñooña ña ca gëmut yàlla dañuy dem ca falasafa ya ba gëm ne yàlla rayatut waaye àdduna mooy rey ku fi yàgg dee rek loolu lañ gëm Firawna ki ñooñu la bokkoon dëhri yu la mooy gëmuñ na yàllaay rey yàllaay def nangam mais nag jamono mooy rey waaye dañoo jël la yàllay def ca jamono ja ñu dégaase yàlla far def loo ko yàlla kooku mooy tabaaxiye yi ak maanaam falasafa yi ak maanaam dëhri yu yi ñu ne ku fi yàgg rek màgget ku màggee rek bu yàggee nga dee loolu lañ gëm waaye ñu yàlla rayut kenn ñooñu de kon dañ leen waroon a laaj ne xale yi dee kon ku leen rey ak borom kartan yi su fekkoon ne jamonooy rey kon day boole rey ñëpp ndoor wala mu boole maanaam euh, dundal ñëpp ndoor wala bu doon jam jaf def yi bu nekkoon ci jamono borom téere bale ibnu asir ma ngay wax ne kon nit ñëpp la tolloo ñëpp ñàkk a ndoor wala ñëpp ama ndoor wala ñëpp bokk njool wala ñu bokk gàtt wala ñu bokk ñuul wala ñu bokk xees wala ñu bokk ñaaw wala ñu bokk rafet wala ñu bokk nekk milliardaire mbaa ñu bokk ñu ngi nekk ay fuqaraaw waaye koom nag ëppante am na ci ka ko def kooka mooy yàlla waaye jamono mënta def ndab la lu yàllay defee ci moom waaye du ne moom mooy def loola yëpp nag gàtt xel rek moo leen ko yóbboo waaye dee moom ak dund ci loxol yàlla rek la nekk yàlla ba mu ko njëkkee wàccee mag ñee ko taxoon a jug bañ ko indilee mag ñi ñu ne ah sonn nañ waaye bëgguñ noppalu de nañ ko yóbbul ñu feebar ñi ñu feebar ñu ne sonn nañ de waaye bëgguñoo noppalu am na ñu ñu gën a sonn yàlla ne comme ñëpp a ngi koy genganteen séddale leen ko rek moo tax léeg mu jàpp ci mag ñi jàpp ci ndaw ñi jàpp ki ñu feebar ñi jàpp ki ñu ñu wér ñi moo tax léeg-léeg gars ku deere nga ragal dee xanaa moom dafa feebaroon de ah kay dana dee ta feebarut loolu yaa nga bëgg a suuraale sa bopp rek xanaa dafa feebaroon de fekk na am dara dalu ko sax bëri na ku feebar nga yëkkatee ko tëral te fekk yaa koy njëkk dee dee maanaam feebar nekkul ci dee dee ak feebar jotee wuñ dara danañ ko fay foogee waaye nekkul fa waaw yàlla moom moo yore mbir mi rek mi ngi wax nag ci ba tey bu leen indilee lay yi rek ñi lay naan su fekkee da ngay ne dee dekkee xam na ñun namm nañ suñu bàyyi indil leen lu ñu leen yéen a wax ne dekkee xam na ñu ne ko waaw mu ne ah, sama bàyyi dee na sama maam dee te maa ngi ko namm ba dee indi leen ko kay ma gis ko léegi xam nga loolu dof la yàlla ne dekki ga àllaaxira lay doon de moo tax mu ne wa ida tullaa ndeem jàngeef na alayhim ci ñoom aayaat naa suñu aaya yi bayyinaatin mbir mu muy aji leer naññi maa kaana du nekk xujjatuhum seen lay ilaa an xaalu lu dul ñuy wax itoo na ngeen indi bi abaay naa suñ bàyyi in kuntum dem nekk ngeen saadiqin di way dëggule dekki xam na yàlla ne qul waxal ne allaahu yàlla yuhyikum dana mu dundal leen ci toqantal mën ni yu ci lumb ci suux ba ngeen génn foofa su ma yumiitukum topp mu ray leen su ma yajma'ukum topp dana dagale leen ñeeni way dudd ca péncam yàlla ma moo tax ilaa yawmil qiyaamati laa ray ba déet sikk fii ca bis booba walakin li fi nekk na aksara naas li gën a bëri ci nit ña laa ya'lamuuna xamuñ loola wa dee nga de wa walillaahi aji nekk la ñeel yàlla mulku samaatu nguuru juróom-ñaari asamaan wal ardi ak nguuru juróom-ñaari suuf wa yawma taqumu fàttalikul bis boobu dana taxaw saatu bis penci yawma idin bisab keroog yaxsuru dana perte almubtiluuna xéeféer yi wataraa da nga gis kullu umatin bépp xeet jaasiyatan yi aji boof kullu umatin bépp xeet tuddaha def na xoo leen ilaa kitaabiya jëm ci seen téeréeb jëf ya ñu ne leen al yawma tay tuggisaa def na fay leen maa kuntum la ngeen nekkoon taamaloon di ko jëf haada lii kitaabu naa mooy suñ téere bi yantiqu day tudd aleykum ci yéen bil xaq ci dëgg innaa naka ñun yàlla ku naa nekkoon nañ nastansiqu di saxal maa kuntum la ngeen nekkoon taamaloon di ko jëf fa amalatina daal xam ne amanoo gëm nañ wax ameloo ñuy jëf saalihaati farataaki naafila yi fa yudxilum dana tàbbalin rabbuhum seen borom fii rahmati ci aljaanam ja wa zalika loolu huwa moom dong alfawsu mooy texe almubiinu gay aji biir yal na yàlla defal ñu ko yàlla nee na àllaaxira dana yegg jamono joo xam ne ñu ne diire ba na fukki at lay diire fukki at mën naa nekk ci xatu àllaaxira yi mën naa nekk ci xatu suñ xati àdduna bi foofa daal bu ñu fa tolloo ku dul tiit amut yonantu yi sax dañuy tiit ñépp ay tiit ba mujj maanaam jël seen wóom yéen ko rëpp ci suuf foofa dañuy seen safara mi ngi sànni ay ferñeent yoo xam ne moo ëpp immeuble yi yàlla wax na ko tarmi bi shararin kal qasri ka annahu jimalatun sufrun safara toll moment boo xam ne ferñeent ya muy sànni moo gën a rëy immeuble yi ak gracier yi ñépp tiit ibrahima ñu ne dana sukk foofa bóof ñu ne ibrahima yow xaritab yàlla bi mu ne nafsi sama bopp doy na ma tey taluma ket foofa nag dana métti métti goo xam ne danañ daw seeti yonentu yàlla aadama ne ko yaay bàyyu mi ndéefi yaa ñu fi indi mbir mi métti na waxal sa borom xatte mu ne man mii bopp doy na ma ndax maa ngi nii borom tere woon ma garab gi bu ko jegele ma waxoon ma ma far lekk ko alaa taqraba haadihi sajarata fa takuna min alxaalimin ma far lekk ko ñi daw na nañ seeti noox mu ne hee maa leen ëpp problème man mii nga xam ne maa ñaan yàlla yàlla xalak lu ëpp téeméeri junney bakkan maa ne woon rabbi laa tasar ala al ardi min al kafirin dayaaran mënoon naa ne na ñaanal yàlla wala ma toog rek muñ waaye maa leen ñaanal yàlla xalak leen ñoom ñëpp sama bopp doy na ma nafsi ñi daw ñu ne waaw nañ dem seeti kon yonentu yàlla ibrahima yi xaritab yàlla mu ne hee maa leen problème mos naa wax ñetti wax yoo xam ne benn bu dafa safaanoog dëgg dafa jàpp ne du dëgg sax waaye buñ ko firi woon rek nga xam ne ñetti yëpp dëgg lañ tukki na ànd ak soxnaam te foofa buur ba dafa ne moom kenn moo xeeyoo xam jabar ju rafet waaye nag ku fi am jabar ju rafet mu nangu ko soxnaam sa rafet na di haajara mu dugal ko ci baxande gaal ñu laaj ko ne ko waaw lu nekk fii ne mu ne samay bagage lañ te soxnaam la wax na dëgg di soxna yi kay wax dëgg yàlla ay bagage lañ ay yonentu wax na ko addunya mataaun wa xayru mataa'iha asawjatu saaliha àdduna lépp ay bagage lañ li gën ci bagage yi àdduna mooy jabar ju baax fa nga déggee nag yonentu bi ne adduna bagage lañ soxna yi kon ay bagage lañ loo cay déggee comme bagage lañ boo xenu xenu loo xattan ko xenu bagage boo xattanul su fekkee yow ah, sa loos wi xattan na bagaasam ñaari soxna mbaa ñett mbaa ñeent ba tey baax na su fekkee ne nag yow kat sa loos wi benn la xattan xem su fekkee benn booba timit nga nga nga nga nga bëgg a yenu sax xàttanoo ko ndax mel na noo xam ne ci situation moola la ëpp daraja ay mbokkam ëpp la xaalis fa nga dëkk mënuñ faa dëkk soo boobaa timit sa loos wi day damm ndax ku ci xenu jabar joo xàttanu rek da nga mujj torop dana dana la topp ba ci say doom te loolu lu jar a la bëri na tey ku gaare soo ko toppee tànk ya dafa takkee fu mu warutoon takkee te takkee fa war a takkee lu am solo la addunya mataaun wa xayru mataa'iha azawjatu saaliha ñu ne loolu la waxoon beneen bi mooy tamit ba ko gaa yi woowee ci seen cérémonie booba di màggal seen yàlla ya mu xool ci biddiw wi fa nasara nasratan fi nujum fa qaala inni saqimun ne damaa feebar wax na dëgg kay yaram nga feebar mais xol baa feebar yonentu bi daana wax ne ana asqamu min ibrahim maa gën a feebar eh, eh, yàlla Euh, kii yàlla wax na ko yunus fa nabas naaw bil araa'i sa saqimun kon loola jarta weddi euh, kon mu ne ma xëpp problème ci la mujj dem nag ca Isa sayyiduna Isa mu ngi tegtal nañu sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ñëwee yonantu bi ne anna laha li ngeen ni la sàkku maa ko moom jël jëxam bu tedd ba sujjóot ko sama borom ne ko irfa rasaka sal tuta tasfa tusfa li nga doon laaj yaako ko moom de si gil sa jëbi nga laaj ñu jox la nga ramm ñu ramm loola yow kat boo fi ramu tey kenn du ramu anta safiul xalqi lama lam tasfai sufaau maam xalifa nee na ko yow yaay kii ramu mindii fi ba nga xam ne ñañ yaakaar ñooy ramu ñëpp joxe nañ gànt yow kenn yaay wax ne anna laha kooku mooy sayduna muhammad yàlla nañu ramu ëllëg na loola ca ñoom téere baangoog muy wax ci xéeféeri ne fa la fi na ndaal ña nga xam ne kafaroo weddi nañ dañ leen dégg nga fa amal la si yaa xam kafaru aflam tàkku ndax nekkutoon dañ leen wax nekkutoon ayaati sama kaawteef tut laa di jàngee fa aleykum ci yéen fastakbartum ngeen rëylu wa kuntum ngeen nekk qawman di nit mujrimiin ngeen yooy kàccoor wa ida qiila ne waxeef ne inna wa'dallaahi naka dëxalab yàlla bi xaqun dëgg la wa saatu bispenci dëgg la laa rayba déet sikk fiyaa ci dëkk ak bispenci qultum ngeen ne maa nadri ñun xamuñu ma saatu luy bispenci in naka ñun daal nafunu dañuy njort rek illaa xana leen njortu wa maa nax nu ñun bi mustayqini na ñuy wuyu hóolu dikk ak bis penc yoon nekku ci bis penc yàlla ne wa badaa feeñ na lahum ñaal leen sa yi atuma way ñaawi jëf la nga xam ne amiloo jëfoon nañ ko wa xaqe xëy na bihim ci ñoom maakaan lañ nekkoon yestation di yëji bihi ca moom wa qiila waxeef lahu al yawma tey nan saa saakum danañu bàyyi leen kama nasiitum na ngeen bàyyi woon liqaa yawmikum dajeeg seen bis bi haza bii wa mawaakum seen tàppuwaay annaaru mooy safara wa maa lakum déet di ñeexal leen min naasirin kenn ku leen dimbale foofa ca safara lii la yàlla wax yéeféer ñu ne ko lu tax mu ne zaalikum loolu la seen bi annakum ci sababu naka yéen ittaxastum jàppoon ngeen ayat laay ay yàlla yi huswan mu nekk lu ñu yëjji wa garatkum xoroon na leen xayat dund ba dunyaa bu jege ba fal yow ma tey nag laa yuxrajuuna deefut génneef leen min haa ci safara wala hum déet ñoom yustaxtabuuna di nangoof leen maanaam seen ak ngàntalu déedéet fa lillaahi aji nekk la ñeel yàlla alhamdu melawu melawu sax te rafet rabbu samawaati mooy borom juróom-ñaari asamaan wa rabbil ardi mooy borom juróom-ñaari suuf rabbil alamina mooy borom mbindeef laa wax walahu aji nekk la ñeel kibriyaawu ak màgg fi samawaat juróom-ñaari asamaan ak juróom-ñaari suuf innahu naka moom yàlla wala huwa moom yàlla al asiisu ki not ci nguuram al hakiim mooy ku xereñe ka foofu la saar wi jeexee tombeeg sax waxtu wi jeex yonentu bi nee na yàlla am na ñetti yére benn ba tubay la benn ba làmbaay la benn ba ñëg la ñëgu yàlla nag mooy tedd nga maanaam làmbaay yàlla mooy màgg tuba yàlla mooy yërmande yonentu bi ne yàlla nee na ku xëccoog man sama yëre yi rek ma toroxal la alkibriyaawu ridaa yi wal azamatu izaar yi fa man yu naasix nii waahidan minhuma adxaltuhul janna wala wala ubaali aw kama qaal mu ne man yàlla daal màgg sama sama làmbaay la tedd nga sama njiit lay la ku ko xëccoog man ma dugal la safara beneen riwaaya ba ne inna lillahi salaasatu as aswaabin yàlla xam ne ñetti yére benn ba maanaam ñëg la mu ne moom tasara bi bil izzati moo tax ba waajee bëgg koo bëgg bëgg koo njiitloo mu ne ko suq innaka maanaam asiisul asiisul asiisul karim te moo doon abi jahlin ba mujj dugal ko dugal ko safara kon izzatu yàllaa ko moom kibriyaaw yàllaa ko moom azamatu yàllaa ko moom ku ko xëccoog moom mu tàbbal la safara te sax du ko faale kon aaya yaa ngoog tombeeg saar wi jeex lépp lu ci leer yàlla la lu ci lëndëm gàtt xam-xam ak ñàkk fasaax la luñ ci xamut yàlla ñu ko yàlla xamal lu ñu ci xam yàlla nañu yàlla may kartan guñ ko jëfee yàlla wàccee barkeeb alquran ci ñun wàccee ko ci yéen wàccee ko ci borom kër gi Seydi Mouhamadul Amin mi ñu may occasion bi ñi ci àdduna bi yëpp di déglu tafsir ba ca waa Italie ñu ngi koy jàpp ci rajo ñu nekk Amérique ñu ngi koy topp ñu nekk Grèce ñu nekk Turquie tey ju baree bari tey ci juróomi continent yi ñu ngi wettalikoo rajo wal fajri topp tafsir bi ña ca kaso ya ndeysaanam yal na yàlla génnee leen fa ñi ci lali hôpitaux yi yal na yàlla saafara leen ñoom ñëpp yàlla boole defal leen jàmm defal ñu ko